le simple la rek ci mbiru arrestation Mustapha Sénégal ay Vision pour ñom Mustapha limu pour ñom parce que ils n'ont pas voté pour passer parce que hypocrisie nit taxaw traité une bonne partie d'une nation que ne dañoo ku xam baatu alku mooy lan wax ci alkande lu ko gën a lu ko gën metti amul lu ko gën a torox amul dèjà moo bi gën a simple mooy tànge boo xamante ne yow sa du doon lu baax alkande jeexantalam mooy naaru jaxanam kon bu nit jàppee ne Moussa Diakhaté traité cinquante 54% des sénégalais de ne dañoo alcool. loolu du lu graaw kon sénégalais ils sont atteints d'une maladie boo xamante ne c'est de l'hypocrisie imam Kanté quand nga dañu war a teggi baatu imam bi tuddee la monsieur Kanté politicien Nabi Vision parce que dans ngay génn ci cadre imam dugg ci langue politique kon dinañ la tontu ci langue politique Yo, so doonul naafeq waro mun a taxaw di défendre Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté du question liberté d'expression liberté d'expression jang nga xam nga l'islam liberté d'expression l'islam da ko ñak imam bi qui nekk ci yow la liberté d'expression da euh, l'islam da ko l'islam da tere booy wax ak sa kilifa nga defar sa kàddu firawna yéeféer bu mag la woon Moussa di yonent di ndaw yoon yàlla yàlla bi ñu ko yónni subhaanahu wa taala da ko ne rafetalal sa kàddu nooyalal sa kàddu le président Bassirou Diomaye fay le premier ministre Ousmane Sonko ay kilifaam lañ ci réew mi

bëgg a siiw ak bëgg a fës moo leen dugal ci position yi ngeen di jël li ngeen jàng ci diine da ngeen ko jël teg ko teg ci seen tànk pour seeni intérêt personnel Mimi Touré ba xasee démb Ousmane Sonko tey mu ànd ak moom soo delloo si taarixu l'islam Seydina Omar mooy le deuxième xalif du prophète sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar alayhi euh, radiallahu taala anhu moom bokkoon na ci ñi génnoon jàkkaarloo lislaam di ko xeex ba mu paree pour tuub est que dañ ko bare laawut bëri woon na jàmbaar yu jàmbaare woon ci seen kéefeer jàkkaarloo lislaam ba ñu tuubee dañ leen ubbil bunt yi yoo xam nga ne lislaam day prone le pardon pour ñëw ci wàllu Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté Batu alkande la yeketi yow yow mi jang xam nga luy batu al alkande ci ci lang arab xam ko ci nabi vision atay islam ñan la fi yalla alak yan xet la fi yalla alak xetu lut ak xetu nuh lan motax mu alak len ñaka wéy ci ndigalu borom bi diko ko ñun dañoo alku solo Moustapha Diakhaté ñun dañoo alku parce que dañoo top Sonko diko ko votal quel est le péché Moustapha Diakhaté war na yëkkati baatu alkande diko ko ci sénégalais yow nga bëgg ñoo né da ngay défendre liberté de la presse liberté d'expression lool mbirum naa feq ngay def mbirum naa feq naa feq yi lepp dina arrêté yow la ci mettre

kuñ ci jàpp maître mooy constituer boppam c'est pas gars yi ñoo koy woote maître mooy ñëw constituer boppam ba paré mo am ben grand bu koy jàppale maître Amadou Sall mais comme mon mo gëna yew mo moo gën a nit day mettre day battre en retrait ci guignol bi occuper les premiers rangs pour dire que jàngat bi mooy lan Maître El Hadji Diouf show kese lay def show pour dire que même Bougane biñ ko jàppee bi mu desee plaidoyer sur le volet technique Bougane dafa wuti beneen avocat bu ko défendre mais moom dañ ko soxla rek pour show ratatatatatatatat kepp loolu rek lañ koy doy ñëw nag ci waa kër dof yi léegi ñoom liñ jël ko moo doot mooy jéem a sincérité élection législative yi ñu pour votre information dem leen ngeen laaj seen patron Bougane Gueye lan mo tax nangul déposer listam dem la nga amu ci samu sakaan Bougane nabi Vision amoon na ay sondage yu koy won ko moom bu demee élection dañ la làppa làppa làpp mu gën a Pape Djibril première année xam nga kooku na plus fort reste mais dañ ko naroon làpp plus fort reste sax du ko gis rush am rush amul Kader mosoo def le tour des bureaux de vote wala le tour des centres Dakar bii ñu nekk vote yi par moment la rek ak par séquence munoo xam li xew ci centre yëpp sincérité vote bi munu leen wax ba yàq ci leen yéen ak seen waa kër dof yooyu Fat Abdou ñëwoon naa la génnal ci kër dof yi boobu du sa avenir sa avenir nekkatu parce que ñooñu dañoo xolu bu ñu moytu goitre lañ ciy jëlee. Serigne Bassirou Gueye ñëpp xamoon nañ ne ni nga doon agité woo ci dossier Ousmane Sonko bi ak accusation yi nga doon def booy wax di tëb di ñax di fomp xamoon nañ ne yaa quelque chose yow ndikkee li nga doon combattre Ousmane Sonko di ko sosal. di nangou Macky Sall di la utiliser ngay fenn di def ay conférence de presse 4109 m2 yo mètres carrés yooyu bëgg rawal la fii lépp dina leer yeen naan ngeen suñu geej maq suñu suñu suñu suuf sacc suñu xaliss léegi nak yeen ngeen bëgg na yeen ñun du peuple bi amuñu droit choisir nit kuñu bëgg yow sa conférence de presse fi fii ku la gisoon xam ne quelque chose cette conférence n'était c'était pas naturel Il ngi a un di dal di accuser Ousmane Sonko di wax ya nga ça n'a rien à voir avec avec l'attitude d'un procureur wala kou la vous ngay wax day militants ont sax yow militant beno Bokk yakar moy toog di def conférence de presse. nabi Vision. ngeen nangu Macky Sall utiliser les corrompre pour détruire l'avenir d'une personne pour pour détruire l'espoir d'une jeunesse toute la jeunesse sénégalaise était contre vous et vous étiez toute la, contre toute la jeunesse.